asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu waaw sëriñ alxaaji Jaañ ñi ngi lay nuyu waaw wax ji de sëñ Cheikh Mbacke kan moo ko moo moo ko jox ne ma naa ko tas ci mbooloo yi waaye bu doon man képp nag sax it duma ko tas ndax ñun ton dañoo tontu ba dañoo maar ci tontu yi te ah kenn xamul daal lii lu muy niru kii di ci jawri nii Ousmane Sonko yi nekk France la bokk ki ñuy wax Akhenaton ndax moom laa mën a wax ndax itam nag kuy wax ci turu nit lu bëgg mat diir bu yàgg a yàgg muy wax ci turu nit ah ba noppi tey woote ñi dajale xaalis di yóbbul kooka wax dëgg yàlla mbir mi doy na ndax ñu nit ñuy dajalee xaalis di ko yóbbul xaalis général de Mouride mu di ko def si yoon yàlla ñoom noonu la ñuy dajalee xaalis di ko indi Ousmane ba noppi ñoom seen dajale dagan ñun suñ dagan suñ suñ dajale di ko jëndee ay butéel di ko jëndee ay gaz di ko baal di ko jëndee ay mees di ci taal ay dëkk mais Sénégal gii nag dafay metti rek mais vraiment guerre bi ñu war a guerre di ko ëgseegul guerre bu nganda nganda nganda nganda danañ ko guerre ndax lii ñu bëgg na nga continuer di ko wax suñ kilifa diine yi di wax naa naa tubaay bu fi safara lañ danañ egg nag foo xam ne danañ woon gaa yi nag ne yàlla nag am ko yàllaay buur ñàkk yàlla yàlla mooy buur bokk na ci li ma gën a naqari nag mooy wax ji ñuy wax di ko continuer ñoom ña ngi ca France danañ leen tontu tontu goo xam ne képp ku jóg taxaw fii da nga da koy bëgg a faj ñu reyanteeg yow nag réew mi yam fii bu ko defee man sonk ñàkk Macky Sall euh, Macky Sall ñàkk ndax nekk ca bitim réew de wax ju demee nii ah boo waxee ñu ñu wax la ne ah ñoom kat ànd ñoom ñun sant ñu leen ko te mu buñ dajalee cinquante millions cent millions indi nga jël ñii woote dajale di indi mais ñun dañuy cotiser dem tabax Masaalikul Jinaan mais ñun cotiser di ko jënd ay butéel di ak ay ay gasoil di taalib dëkk te ñun ñoo ngi noppi te cotiser nag cotiser rek la fii mu nekk nii li murit yi eh, bitim réew yi dajale ci xaalis di ko indi fii ñu di ko liggéey liggéeyal lislaam ñoom li ñuy dajale ci xaalis di ko indi fii di taal dëkk bi ñoo moo gën a bëri te nag mbir mi ñu ngi ñuy bëgg a soof yaa ngi dégg mbir mi moom mu ngi ñuy bëgg a soof te nag nit ki boo dee tuy sa ngëmam muy muñ ngay tuy sa ngëmam muy muñ ba fa muñu yem na nga kone di tuy sa ngëmam dina la jaay bakkanam il faut faire doucement billahi lasi la ilaha illa huwa bu fekkee suñ tubaa am na lu toll ni tarafatal ay nii ci yàlla fii ku fi bëgg a toroxal suñ tubaa waxuma président mais doo doon sax planton fii ci senegal ku ko weddi laaj ñi fi jiitu woon fii kenn mënu fee bëgg a samp dara lu sotti bis bu la ngay wax suñ bàmba lu tax suñu xol yi dagg ñun ragaluñu dee ah ragaluñu dee de te bu leen yaakaar ne dañ leen ragal ragaluñu leen te ragaluñu dee te nag ñu ngi bëgg a maar ci affaire yi quoi ñu ngi bëgg a maar ci seen wax ju ñaaw ji Ousmane Sonko bu fekkente ni ñii yow lañ àndal war ngaa wax ak ñoom te mënoo wax ne àndoog ñoom ndax ñoom ñiy wax lii ñooy jëwri ñi dajale xaalis bi ñuy indi fii Sénégal ñun dëpp ñu ci la jàpp ñu fi mu nekk dañoo sonn vraiment wax yu ñaaw yi nag dañ cee sonn wax yu ñaaw yi sonn nañ ci de te bis bu ñu sonnee nag di ngeen xam nañu sonn nañu vraiment sonn nañ ci affaire yi Sëñ Tuubaa duñ Ousmane Sonko jaral lu ñu Sëñ Tuubaa dafa war a leer Ousmane Sonko jaral lu ñu Sëñ Muntaxa Mbàkke dégg ko jënd Sëñ Tuubaa duñ ko jëndee Sonko dafa war a leer Sëñ Muntaxa duñ ko jëndee Ousmane Sonko dafa war a leer te nag dañoo war a xam nag ne gëmul leen Ousmane Sonko lu toll li ñu gëm Sëñ Muntaxa te lu leen Ousmane Sonko jaral ñun jaral Sëñ Muntaxa jaral nañu lu ko raw te danañ am bis nag boo xam ne da ngeen fàtte bisu Macky Sall bi ak yéen fii ku fi waxati Sëñ Muntaxa nag sa dul noonu nekk France dinañ la tontu te buñ la tontoo Sénégal gii ku fi ku jóg ne da koy faj di nga xam ne bu dee dee gënoonu koo ñime ndax nag lii dafa bëgg a ëpp trop c'est trop akana ton seetal yàlla bul taal réew mi yéen seen gone yi nekk fii ngeen nekk foofu yéen lu leen neex wax ko suñu sëriñ si ñun bu ñu waxee bu ñu waxee bu ñu waxee jëm ci yéen ñu dal suñu kaw ñun ragal lu ñu leen ragal lu ñu deeta ragal lu ñu leen bis bu ngeen amee bis bu ngeen amee yoor yooraf murid yi ak yéen fa ngeen di doxe ba ba ngeen di dee dootu leen xalaata moomam réew ba ci lan lan ba ci pétrole ak gaz pétrole du yàlla gaz du yàlla settantal leen waaye ñun ba mbir soof nañu de trop wax ju ñaaw ji nga xam ne ñu ngi koy wax ci bitim réew ñi ko wax ne àndu ñoo ñi ñi koy wax ne Ousmane Sonko lañ àndal Ousmane nee na li ñuy wax santuma leen ko te buñ dajalee xaalis yónnee la nga jël xanaa ñun dañoo dof wala suñu làmmiñ dafa dagg na ci suñu ñi mais lenn li mu ñu bëgg a soof man daal gor daal nag vraiment am na loo xam ne su ci bëggee continuer nag ak lu mu doon dana ko suur yellante woon nag Sénégal Ousmane Sonko nga man koo tabax ba mu mel ni aljannay biti mais su fekkee ci torox tey Sëñ Tuubaa nga koy tabax yàlla boo tabax Sénégal ndax man li muy wax day leer su fekkee ni nag cag yi mën ngeen koo rey ni ngeen ñëw rey ma ndax man su ma xasee jël décision damay jël décision ñi fi dee gënuma leen te ndegam Ousmane Sonko leen jaral dee ñoom ñooñu mën sëñ Sëñ Tuubaa daf may jaral dee ñu avons marre ci seen wax di ñaaw ji ngeen di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu xaadim ñoo ngi lay nuyu ah ngeen di ma jéggal ndax man bu ma déggee lu lu lu safaanoo ñu jë ñu di jëmale ci nit yàlla ah, su may départ di wax nii sax damay am sago waaye damay dem ba ba yàgg bu sama xel demee ci wax ji kooku doon wax damay mujj duutuma fi yi maam damay tararar yi rek mel ni mel ni leneen ma wax loo leneen moo ma diyeti wax loo waaye du sama jëmm moo tax euh, bu ñu waxee ci nit yàlla yi dara léegi damay damay damay ma feexee daal noppi daal ndax ba noppi wu di te dinaa wax ba wax li nga xam ne sax euh, waruma koo wax te itam ah ñun day mënoon nañu bu ñu xasee seen kilifa ñu xas seen kilifa waaye ñun duñ ko def man sonk nag ak loo mën a wax ci àddina nim amee ci yoonu murit murit yi jubadi ba noppi tey dajalee àddi yi di indi noonu la amee nag dégg nga maam waa Pastef yu jubadi di wax nag sadul noona tey daje ad te dajalee àddi yi di indi te di ko delloo waaw man bu ma xasee nar a wax moom moom kenn mënu maa teree wax te ay argument yu leer nañ laa la jox yoo xam ne doo ci mën dara wax ji ñaaw ji dafa yàgg Souleymane moom ngeen di wax mu daan ko wax mais Souleymane kenn rek la woon mais man bu doon man tey man Ousmane Sonko damay wax ñëpp dégg ma damay wax ne ku ci yaakaar ne xas kilifa diine yi ak wax lu ñaaw ci ñoom dana tax ëllëg man su ma nekkoon président nga tekki dara su ma nekkee président ñi lay njëkk a daaj ci kase bi man ci lay bokk mu leer nañ waaye bàyyi noonu waaye amul problème sax biraasu man baaris nii rek biraasu man yu baarisul mun taxamul baaris te bamba dina dagg seen lu bon man maa leen ko wax waxoon naa leen fi ci tëggam mbool ma ne leen billahi lazi la ilaha illa huwa ku ci wiloo ak sëñ Bamba bu la yenoo ba yax bu la daane yow da ngay fuuti laa la wax nii wax jooju dama koy wax nit ñi defe ne man damay wax ay waxu dof wala damay daan ay gag bi wala leneen waaye ca tëggam mbool ma laa leen koo waxoon ne leen su ngeen mëntul mii ngeen di jéem a këll-këllee billahi kum ci dugg ci say yeel dana la yenu ba sa biir wax mu daana la ci suuf la daaneel waaw mm, waaw na ci loo xam ne lii marix rek kenn mënu ci ñaari dërëm xam nga xorom si ndox xam ngeen ko baxala ko cay génne boo ko baxalu ndox ma du génn te nag am na yoo xam ne nag dafa bëgg a soof wax dëgg yàlla dafa bëgg a soof dafa bëgg a soof kat li ma wax eh, eh, sëñ bam sëñ xaadim bamba dañoo wax ne anil mar'i la tasal fasal an xarini i fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi nit jërta laaj laajal ñamuy àndal nit ku nekk ay àndandoom ñoo bokk jikkoo man damay analyser de damay analyser ñoom dañuy xas di ñu xas ñun murit yi di ñu xas naa ay doomi xaram ngeen ay lappatoo ngeen ay baadoolo ngeen da ngeen di kër kër yi liggéey guddi ak bëccëg di yëgal yëgal di ko yóbbu Tuubaa te ñun li ñuy yóbbu xaadim bamba sekk mais feeñ na ci dëkk bi ay jumaa fi ay jàkka fi mais ñoom li ñu ci lay indi ay biteel la yu ànd ak ay gaz waal ñuy taal réew mais gis nga man bu ma naree wax moom bul yaakaar ni nit mën na maa teree wax man ragaluma dee ak dund laa yemale sama fuu bu yeboo li ñëw ñëw taal sama kër mais nag bu ma naree wax moom dinaa wax lépp lu jógee Europe ci turu tubaa ci jàkka dem lépp lu jógee Europe ci turu Ousmane Sonko biteel la jar ak gasoil ñuy taal dëkk bi mais léegi nag lan ngeen bëgg lan ngeen bëgg nag léegi ñun dañuy nappi rek ñoom ñuy wax ñun ñuy nappi ñuy wax rek ñun ñuy nappi man gis nga bépp murit boo ci xam ne lii may wax naqari na la nañ dammoo bant laal wax nii nga dem ma dem mënuma koo teree wax ndax ñoom ñooñu li ñuy wax kenn mënu leen koo teree wax man buñ bëggee jàmm nañ bàyyi si mu ak jàmmam ak léegi man dem naa bay dal ci murit yi dal ci kilifa yi diine murit yi lu nekk ma leen koy yekk naa leen bàyyi nangam bay leen nangam bay leen nangam te man li tax ma di ko def mooy damaa bañ ñu gis ci ñoom lu tax ñu mën a wax loo xam ne man du ma mën a weddi loolu tax ma di ko def mais nag fi mu nekk nii daal bu ngeen yëngalee yambi mbooyee moom da ngeen ci bëgg a génn mu tëli waaw su ngeen waaw su ngeen yëngalee yambi mbooyee wallahi da ngeen ci bëgg a génn mu am na ci yoo xam ne yi moom murit bu ko ci bëgg a rafetal ab naa fekk nga damay wax lu leer naññ ndax man faaliwuma kenn yow boo nga sant mbàkke si boobu la neex sant ko waaye am na ci loo xam ne murit bu koy jima moraliser ab naa fekk nga ab naa fekk pire nga te dama koy wax man faaliwuma kenn ci li may wax nii man mënuma nangoo dégg addee yi jógee France di jógee Amérique di jógee Hollande di jógee feneen ñoom ma demba càmm di ko indi ñu di ko jox suñu muntaxaa mais cinq millions yi mu jox waa fajiri fa waa waa kër waa waa waawal fajiri fan la ko suñu muntaxaa jële deux cent millions yi mu joxe woon ca ko koy bisuma la ko euh, euh, suñu muntaxaa jële ñun murit dañuy dajale suñu alal di ko jox suñu sëriñ mu di ko def ci lu am njariñ ñoom dañuy dajale seen alal di ko jox seen sëriñ ñu ko jënde ay gaas wala kii ak kii bitel di taal dëkk bi mais ñoom ñooy ñan nag ba ñun dañ ko wax danañ ko wax nag ki mu ci dara dafa guddi waaye suba dinaa wax bu fekkee waa Pastef dañuy rey rek na ngeen ñoo yi ma sax gi ngeen di gàll am na yoo xam ne mënutuma koo taloo rey day man a jeex nag wala ngeen rey ma ñu ne waaye góor ga ne woon gàndigaal waa Pastef rey nañ ko te bu ngeen ma reyee seen seen seen bi du falu ba yomal xiyam te man maa leen ko wax bii billahi lazi la ilaha illa huwa bu ngeen ma joxañee jeexal ngeen ci ko suuf ndax góor gu jóge woon ndakaaru di yalwaan topp tefes gi suñ tubaa di tabax jumaa fa njariñ mu topp tefes gi ba dem ci dëkk du wax dëkk ba te jumaa jooju du egg ba yomal xiyaam waaw wax nag dëkk ba ba dem ci benn dëkk dafa yaalaan fekk ñi ñi fondement jumaa ñu ne ko yow ñun ñi fondement jumaa suñ tubaa di maa jumaa ah nga ñëw fi naa da nga jumaa mu ne ah kon yéen suñ tubaa ngeen def moroom gars yi mu ñu ci loola góor ga daanoo ay gàngir yi mel ni man nii ñu jàpp ko dóor ba mu bëgg a dee mu ne leen war naa sëñ Bamba ne seen jumaa ju di egg ba fii ma toog jumaa ju di egg du egg ba yemuy asoon laa ni wax nii te ku sant Mbàkke sax waxu ko ab taalibe ko man rek moo ko wax moytu mu murit ci sëriñam ngeen di ko ci wax lu ko naqari xëy na nag dangeen a xamul rek waaye billahi la ilaha illa huwa am na nag loo xam ne bu ngeen fa eggee falu moom da ngeen dégg du ko mas a gis seen bët ndax nag dañoo bëgg a sonn dañoo bëgg a sonn man munu gis nga naa fekk mënumaa nangu naa fekk mënumaa nangu naa fekk kat ñu ngi nii dajale xaalis bi si nekk di indi indi leen million millions indi leen cent millions indi leen nangam indi nangam ñii jaww ni mag yi yore kàddu yi di ko annoncé du bi kañot yi dajale xaalis bi ñoom ñoom ñooy xas si sëriñ si mais nañ ñu wax ñoom seen xaalis boobu ñuy dajale buñ ko indee Sénégal fan lañ koy dugal fan lañ koy dugal man buñ ma moytuwulee dégg nañ ma rey de waaye balañ ma rey ma wax lu ñuy coow si mun taxawum danañ ko war a bàyyi mënuñu koo bàyyi nag ñun danañ seetum pexe ndax nag dañoo sonn vraiment dañoo sonn suñ bamba jëralul sa bakkan doo gor man maa leen koy wax ku pétrole ak gaz jaral suñ tubaa doo gor tam leen koy wax kan na fa kan na pétrole ba gaz bi nekk ci biir suuf si rek génn génn da ngeen tukkal addina bi Sénégal am na pétrole Sénégal am na gaz Sénégal def na nii ma paate sàcc na nangam ma dem ba dugg na fii ma li may wax nii mooy dëgg man dootuma arrière li may wax nii kenn ku ma mën a tax amul Macky Sall bu yeboo falu bu yeboo ko soo boo yellu ci àlaxira sama fuu ci problème Macky Sall man li ma yitteel mooy téye moom a yitteel mooy damaa bëgg Sëñ Tuubaa mii ñuy tàbbal safara ak i doomam ñu bàyyi ko Atoumane Samb moom ba ma ko déggee mu wax ni ne eh, sëñ Mountakha Mbacké day dem safara directement noonu la ko waxee ca laa feebare ba léegi te Atoumane Samb ma nga ca ma nga ca ma nga ca yaa ngi dégg aka ne tan mu ngi koy wax te ma nga ca aka ne tan Pastef la nekk bale naa tëq aka ne tan ci Pastef la bokk ku waxul loolu ab naa tëq li may am na loo xam ne ma koo dégg yow Bamba yow yow xaadim Bamba li nga mën a li ngay laye nii tegoo ko fenn yow ixtilaafaat mashrabiya ak ixtilaafaat madhabiya ak dafa dafa bokk ak xasful alxasfu wa shabu wa satmu wa laanu dañoo bokk ay jullit mën nañoo ñàkk a bokk gisin ci wàllu diine mais ne nit sa mbokkam jullit nag di ko xas di ko tànc mais nit ki bu nee moom yàlla la moom la concerné digganteem ak yàlla mais nit ki bu jàppee mbokkam jullitam di ko xas di ko ŋàññi di wax ci moom lu ñaaw dama ne mënoo rëcc mënoo rëcc yonent bi nee na àq yi dox si digg ak yàlla yépp yàlla mën na ko bale mais àq yi dox suñu digganteeg nit lañ mënta baale waaye nag am na ci yoo xam ne vraiment man Ousmane Sonko du ma wax ci moom lu dul lu rafet Ousmane Sonko ab salafiste la woon bokk ci Ibaadu Rahman ab salafiste la woon boo xam ne kenn du ko werante pour ngeen xam dëgg gi nag léegi Ousmane Sonko bureau bu jigéen ju mosoon a sol robe bu gàtt duggee day nëbbatu ji da wax subhanallah subhanallah kooka bu demee di dem di dem di dem di dem ba ne na koy jigéen di bës muy fay xaalis nga xam ne kii saytaane mën na ko mais de moytu leen ñëw vraiment da ngeen ñëw war a moytu ndax man am na yoo ne bëgguma koo wax waaw na loo xam ne bëgguma koo wax man jullit bu baax bu ragal yàlla bu demee ba se ma ne koo xam ne bu jigéen di sol robb duggee sa biir nga ne subhanallah subhanallah ndaw ndambutu yi koo xam ne doo jox jigéen loxo ah mais boo toogee ba ñu di la laaj nga naan maa fa demoon dañ ma doon bësal tànk ak dañ ma doon bësal loxo te yow seen loxo mu soon na xamu laal sa yaram buñ de mu soon buñ soroon lu gàtt du doon na ñu dugg sa biir su la seytaane man ma manee di la man ma manee ba ngeen tabaxi ci yenn côté yi mais dañ lay mën a yërëm nag ñaanal la yàlla mais nag duñ la tabax def la nag wàlliw def la xut bu samaan kooku dafa munta nekk dafa munta nekk ñun nag duñu attaqué seen kilifa googu di Sonko mais nag attaqué si munta xaamam dana jeex mbaa nag da dégg lu leen naqari loo xam ne dina leen naqari du ngeen ci man dara ndax ñun Sénégal gi lañ dëkk am nañu làmmiñ mën nañoo wax te nag Sëñ Tuubaa kii doomam duñ ko jëndee mbindeef te rawatina xalifa général de Mouride il faut nag dañuy wax man sama sikk lépp loolu la man li sama sikk dinaa la ko wax Bamba laay Bamba man bis bu ma déggee nit koo xam ne da ngay tuddoo Ousmane Sonko ba noppi di xas sëñ Muntaxa Mbàkke ab murit di ko jiima rafetal murit boobu ab naa fekk la dangaa wax ne Ousmane ñii di cotiser xaalis di la ko indil di teg ay cagnotte di la ko indil ci réew mi ñu naan jox nañ la cent millions cinquante millions soixante millions di annoncé di wax naan du nangam dugg na nangam dugg na nangam dugg na la ngeen joxoon dugal nañ ko béréb sàngam ñooñu seen bopp ñooy xas sëñ Muntaxa Mbàkke waaye sëñ tubaa am na taalibe boo xam ne su ko nee kaay julli mu ne duma julli te boo ko joxee addee mu jël Ousmane Sonko am na talib boo xam ne su ko nee bàyyi sëñ Mountakha bu ko xasati mu ne bawuma ko te su ko joxee addee mu jël mais dañoo fokk dañoo waroon nag sëñ Mountakha addee yi ñu koy indil muy alal da koy tabaxee jumaa di ko def ci yoonu yàlla ñii nag seen addee yi ay bitel lay jar ak ay kot tol molli toof nañ waxante dëgg da dañoo sonn laa wax nii man man fi ne nii damaa maar te nag su ma su ma man nag su ma maaree moom amatuma ci maslaa mbir mi dafa soof waaw xaste bi dafa metti waaw tey tuddoo na Ousmane Sonko tey xase Souleymane Sir Diop jamono ji mu nekkee di wax loolu booba début li mbir mi melutoon nii booba man man xamoon ku Souleymane Sir Diop mosuma dégg sax ay waxam mais wax yu ñaaw yi ñuy wax te bis bu nekk ñu ngi ko dëkkandi ko wax su nekk ñu di ko dëkkal di ko wax bala ba tikku di man man nangu naa ñu di ko wax di tuddoo sonk te ànduñoo ak moom nangu naa mais ñu di ko wax di tuddoo Sonko Sonko ne ànduma ak ñoom te buñ cotisé indil ko mu jël ko ma ne duma lekk mbëtt tey naan ñeex ma mënuma ci d'accord ak naa fekk la duma lekk mbët tey naan ñeex ma mënuma ci d'accord ak naa fekk la nañ waxante dëgg mbir mi nañ ci wax mu nit murit yi mbir mi mi ngi bëgg a ëpp ay loxo xeex bi nag benn dong lay mën a doon ki ngeen yaakaar ba di xasal ñu suñu kilifa yi nañu dem àddina ak suñ kanam gone soo ko nee bis nga ca déwén mu ne la bis boobu ak tabaski la est-ce que man ñi mën a jógee fii ne damay jëndi slip euh, Colobane ma fàttali slip yi plus de trois heures de temps oto du dem oto du dikk ma bëgg ko def nag yoonu tool bis bu nekk mais dañ waxante dëgg waay naa baaxul te dafa yoo xam ne rek dafa dul mën a wéy nit buñ la dee ji may jàppale di ji ma masaa di ji ma rafetal suñu diggante ak yow nga ànd nit ñoo xam ne ñii dañuy xas di xas suñu sëriñ bu fekkoon te ni dërëm buñ dajalee yónnee ko mu ne téye leen ko soxlawuma ko d'accord waaye ñii di xas suñ Muntaxa dërëm bu buñ yónnee parce que dañ koy jël mënoon lañ ko jël nag te noppi yem ci mais dañ koy jël ba noppi te ñun bu ñu yëkkati addee joxe ko Touba ñu xas na ci loolu man dama leen koy wax de suñuy addee du jar ay butéel ak i gaz laa la wax nii suñuy addee du taal dëkk bi bu dara des nag lu may danga moom danañ danga sante nag waaw bee boo ngeen ñëw rey lu may danañ danga waaw. maa ngi leen di nettali loo xam ne masoon naa koo nettali. xam naa ne sax kenn du ko gëm ndax euh, dañuy wax ne Seex dafa mer rek man mas na maa gis Iblis ci usine ñaari tali kër Alaaji Abdoulaye Dione masoon naa faa nekk def fa trois jours booba jamono ci suufu yànk gi laa nekk ma gis Iblis keroog bu ma gisee Iblis Sëriñ ab Sëriñ Abdul euh, Aziz Ibnu Sidi Aji Malik moo ma tàqale ak moom mu sol ab tropé d'eau jëmu jooju gisaat naa ko gisaat naa ko mu nekk ci réseaux sociaux yi dëkkaat sëñ Muntaxa Mbàkke torpedo boobu mu sol laa moom la foofu laa mën a yem ndax nag am na yoo xam ne wala su ko wax keroog ba mu ko gisee ak torpedo boobu noonu mu yor benn bët yaa ngi ma dégg nii waaye jëmm jooju ma gis dooju la ba mu ñëwee ba jubal ba dafa maa ciipatu dafa maa ciipatu daal wax nii ba mu ma ciipatoo daa mel ni àddina tukki ci man ñëpp la ci laa gis ci sama wet mu toog sol daraay mbatin yor kurus gu dijj teg loxoom ci sama pooj ne ma seex xam nga kooku fi kooku la romb noonu ma ne ko déedéet mu ne ma kooku mooy iblis borom torpedo boobu maa ngi ko gis jëmm ji ma iblis indi loon gisaat na gis naa ko te mosoon naa ko fi nekk daw jig ne ma sama gis iblis mu yor benn bët solo ab torpedo kanam gi xees comme këramu nit ñu xees ñooñu noonu nañu moytandiku waaye nañu moytandiku jóge fii dem Arabie Saoudite triande defa ay quatre vingt deux cent quatre vingt milliards triande fa alal ji dul jeex du xaaj di dóor këtu martu tàppalekat boo xam ne ñëpp xam nañ la démb tey soo ko ñëw nga ñëw fii di ko jéem a raxase njàngum kaamil chaque ajjuma nga woote Dakar nekk ci sa fondation islamique ne da ngay jàng kaamil te nga di dóor këtu martu trian ma nañ mooy tandiku ko dégg mu naan muntaxaa lay laaj nangam diw laaj nangam yow li ma lay laaj mooy sa sa cabillon guro ba nga doon takkee ci jabar da koo fàtte man duma tudd mukk ka nga doon takki jabar mais fii nga nekkoon Sénégal triandé alal bi ci Arabie Saoudite indi ko fii di cakaay fii sarse guro cabillon ba mu fees ngay takki jabar kooka dee na du ma ko tudd mais yow yaa ngi dund te yaa ngi tudd nag seen muntaxaa tous les jours te mag nga bëgguma tudd sa tur ndax mag nga yow ba nga fa jógee daw Arabie Saoudite ka nga fa bàyyi woon ñu jàpp ko layo ba dem ba mujj yàlla musal ko kooka ba mu dikkee géeje way la dëkk la la la woon kër du ma tudd aw tu aw santam waaye ndongo la tudd moom itam àjjuma ju nekk nit ñaran ko mujj leen jox xaalis ngeen séddoo seeni milliards sàcc alal naar yi ñëw fii toog boobu laa di yëg fii wax ne ku fi sàccati alal yi naar yi naar yi dinañ la fekk fii ñu la yoog yow nga daw dugg Europe nekk foofu sa làmmiñ bu rëy di ma dal suñ muntaxaa billahi wallahi wa taala yi bu fekkente ni da ngeen ñuy napp nag rek ngeen defe ne ñun dañoo ragal dee ba tax ngeen nekk foofu ci France bàyyi seeni bandi fii ci Sénégal ngeen di wax sunu kilifa yi lu leen yàlla yore ñun ñi ne duñu wax danañ xaru dee waaye bu dee bu seddee criminel ku leen wax dëgg ngeen rey ko na ngeen rey sax ngeen gàndigaal mais wax ji moom dana jeex mbaa di ngeen dégg lu ngeen mësta dégg boobu ba léegi damaa feebar ak borom tropido bi rajim seytaane iblis soof trian daar dóor katu mattu yow dootoo tekki dara yow plus de deux cent quatre-vingts milliards ku ko triandé di cakaay fii Sénégal ba xëy nekk ndóol magam jëm romb juróom-ñetti fukki at di sol ay trépido di sama lay màggatam hay sa boon di ja di sama lay iblis ma ne am na yoo xam ne yi mënul wéy affaire bi nag dana jeex ci nii mbaamu jeex na ci des ñun nag duñu leen song duñu leen dóor njëkk saaga nag saaga nag yàkkamte xeex la mais nag Ousmane Sonko mii duñ ko jëndee nit ñoo xam ne dañuy tudd Ousmane Sonko di di xas guddi ak bëccëg te duñu leen tontu. tontu moom danañ leen ko def waa jooju dinaa ko mës tudd mu dégg ko jaxran waaw dinaa ko mës tudd mu dégg ko jaxran ndax faaliwu ma ndeyam ak bàyyam waxantuma moom ak boo ko gisee muy sama ndey xaaxaam sëriñ bi yahud lay nirul xaaxaam teg si tay mag mu dem borom bu juróom ñetti fukki at ak nangam di sol torpedo di naan sangara di tambambaalu ci biir réew yi tubaab yi sertikatu xaalis trian di dóor këtu mat xaalis man dafa am yoo xam ne yi du mën a wéy du mën a wéy ah sa jabar ji nga takkoon fii def ci kabiyangu guro danga koo fàtte di ko tabaxal kër fii ci Dakar mu yàq sa alal yëpp ah karo yoo def ba eggal mu dikk ak ak i kareem rëdd fii rëdd fii rëdd fii rëdd fii na loolu baaxul ñu dajji sànni nga yaaxari yaaxari màggat mu dem ba del si nga xam ne ku ne takk na ko sànni ko sagaru nit koo xam ne tekkiwul dara nga dem di ci def alal ju kenn xamul nu mu yem ñi nga dem di maye ji guro sarse camion ba mu fees ci alal joo xam ne da nga dóor da nga koo diil mais wax ji dafa war a jeex nag mun Muntaxa da ngeen koy wàcc nag suñ bay si da ngeen koy wàcc nag loolu moom day mën a am nag mbaa ñu wax leen seen bopp nag ndax du ngeen dara nit dongu ngeen sëñ Muntaxa ngi baatam ni photo ma ngay dem France que ñibbi ci Sénégal sëñ Mbay ci baatam ni photo ma ngay dem France que ñibbi ci Sénégal magum jëmm yaa mag sëñ Muntaxa yaa mag sëñ Mbay si loolu triant ak dóor ak dóor martu du sa métier li la tax a bàyyi Sénégal ñëw foofu di torpadoowu te war a te dee des ci yow moo tax ngay wax te mag mu toll yow te doo wax jàmm bis bu ne musiba ngay wax bis bu nekk musiba ngay wax moo tax ñoo ay taaju diine ki nooru diine ki démba diine ñàkk fay la Euh, waaw Serigne Khadim Bamba ñoo ngi lay nuyu di la sa jàmm ak sa jàmm yaram waaw xam nga xam nga xam nga Ousmane Sonko deful kenn kenn kenn loo ko meree bay dal ci kawam euh, dañuy wax dàqam ginaar wax ci sa soxla ñi ànd ak Ousmane Sonko tey xas Serigne si ba Ousmane Sonko feeñagul it ñi ngi woon ci xasam Serigne si. te booba sax ñoom Ousmane bokkoon nag mbooloo wax dëgg yàlla neexut a dégg nag waaye dëgg gi moom da ngeen ko dégg boobu ñoom Ousmane bokkoon mbooloo ndax Ousmane yëngutu na ci côté boobu ndax université la nekkoon université nag mboolem mbooloo ya fa nekk ñëpp laa xam ña fa nekk mustarshidi nag ña fa nekk ibadoog ña fa nekk arakatu fala asarafiyaak ña fa nekk eh, eh, isbu tarxiyaak marxiste leninisme yaak décision démocrate yaak ñëpp nga fa ay mbooloo yu bari lañ fa xëy na nag nit ci politique yaay dem ba xam ne fii la gën a dëlli fii la mbooloo mi ëppi naa dugg fii ndax ma am li ma bëgg yoonu murit nag mooy ndaarir golo yi nga xam ne ku jóg dugg ci biir boo nee mbilim li ci gars yi daal di gàngiri ne la yaay doomi yàlla yaa tiim sëñ Bamba ak Cheikh ma Fall ndax suñu ngoof ak suñu bëgg ak suñu xir bëgg a xir nag baax na lool waaye ràññee baax na lool wax dëgg yàlla war nañuy ràññee jamono ci nekk Ousmane Sonko nag defut kenn dara sàggawut kenn taxaw na ci buntu kër si mu taxaw kër Sëriñ Tuubaa googu ñu laaj ko mu ne ñu koy def ak a wax ànduma ak ñoom waaye nag dëgg-dëgg nag da ngay dem ba sa xol jeex nag da ngay dem ba sa xol jeex nag xol bi dana jeex jeex goo xam ne kenn mënu ko misaal te li tax Ousmane gémmiñ da koo dugg mooy mbooleem nag mbooloo moom mbooleem mbooloo yooyu laa wax ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp dañ leen cee fekk waaye ñoo àndoon ak man ci Sénégal gii nag laa dëkk loolu dama bëgg ngeen xam ko gis nga képp ku ci bokk da nga cee si waaye ñi njëkk a topp Ousmane ko ànd ak ñoom ñëpp ñi ci ëpp ay salafiste la ñëw dafa war a leer dafa war a leer ndax itam nag loolu mu ci salafiste du salafiste du ndëmm di <laughs> déedéet salafiste du ndëmm salafiste du dara diine rek la mi ma ni mu teg tijaan xaadi rek laa yëpp ñamaqi la salafiya lañ gëm ñi di ko topp libre nañ ci fii réewum laïcité la kenn du forcé kenn ci lenn xanaa kay di di jar sàkk sa mbokkam jullit di ko xas di ko tuutal di ko def ak yëfat di ko tàmbal safara te te awdoo yàlla loolu moom moo dul yoon te loolu moom salafi si dañ koy faral di def coow li coow li loolu rek la taxaw fii ne nit dem na sa safara te déewagul loolu ñoom dañu wax naa murit dañuy wax fii naan nit dem na àjjana te déewagul mais yéen da ngi tax nit dem na safara te déewagul ñun benn lañ rek dañoo rafet njort yéen ngeen ñaaw njort salafiste bi da ngaa ñaaw njort li tax bi dafa rafet njort ba ko dee mu ne dem naa jana waaw yow salafiste bi da ngaa ñaaw njort ba kuy dund nga bu dee dem safara inna ba zanni ismun wala tajassasu bi'sal ismu alfusuqu ba'da dem safara njort lu ñaaw képp la inna ba'da zanni ismun wala tajassasu bi'sal ismu alfusuqu ba'da al iman murit bi daal rafet njortu ba ko dee mu ne dem na àjjana salafiste bi dafa ñaaw njortu ba kuy dund sax mu tàbbale safara te déewagoo waaye Ousmane saagawut saagawut murit dina saagante nag ñoom ñangam sa nangam saag nu si ni sa nangam moom sa nangasanteeg ñoomu tollal jamono te xëccoo àddina waaye nag xasut murit saagawut murit ndax nit ki booy wax da ngay wax li li nga seere ma shahidna bi illa bi ma alimna wa ma kunna lil ghaybi haafizin waaye nag ñi tuddee Ousmane tey saaga day bari ñi tuddee Ousmane tey saaga bari na lool ñi tuddee Ousmane tey xas sëriñ si bari na lool xam naa ne bu ñu waxee ne ku fi ëpp ay saagakat ci Sénégal ak i xas si kat ñu ne Ousmane Sonko ku fi ëpp saagakat ak i xas kat ndax ñi xasee ko saaga ci bitim réew ñëpp Ousmane la ñu àndal ci seenu làmmiñ te ñooñu ñu ñu ko duubale gi biir Sénégal fii nag yet yi dafay tëdd ku fi xas nit mu fabu yet dóor la moo tax waaye fañ fañ demee ba sori ba kenn du leen dab ba ma leen a jati ñu làq leen fa yàq yëggut yàq dong lañ fa nekkee man nag xasul nit sàggawut nit loolu moom mën naa ko seere ah nee na it àndut ak ñi ah, ñi ñiy àndut ci sàgga yi ñuy saaga loolu tamit mën naa ko seere digg naa ko waaye nag yàlla dafa maandoo yàlla dafa maandu Ousmane Sonko da ngaa war a wax sama njaboot gi ne su ngeen ma bëggee te ànd ak man bàyyi leen si ngeen di xas xanaa jànguloo aaya ba yàlla wax ne bu leen xas yàllay gaa yi ma weddi su ko defee ñu xas ma ci kaw noonoo akum ñàkk xam lii bu dëkkul ñu xas sunu sëriñ si di tuddoo danañ leen jéggi xas la yow personnellement ndaxit nag ngàtt geen joo gis na ngàtt gen moo koy fay Ousmane bu dee jullit nga dangaa war a def ni yàlla def yonent bi ne na taxallaxu bi axlaaqillaa yi dee leen jikkoo jikkoy yàlla yàlla kat ña ànd ak moom ba ñuy xasi yéefar ya ak da xas seen yàlla ya yàlla da leen ne bàyyi leen xas yàlla yéefar yi ndax su ngeen ko defee mën nañu maa xas ci ak noonu akum ñàkk xam waaye kat Ousmane bu dee da ngaa sell gaa yi nga àndal seen làmmiñ yi dañoo taq selluñu Ousmane bu dee da ngaa sell gaa yi nga àndal seen jëf selluñu Ousmane bu dee da ngaa sell gaa yi nga àndal seen xol selluñ ndax xol bu sell lu baax ci génn xas ak saaga dong lañu fi nekkee ñun nag duñ la xas duñ la saaga incha allah ndax xam nañu diine te yàlla dafa wax ne bu leen bu leen bu leen bu leen xas yàlla yéefar yi ñu ñu xas ma te fekk na ak noonoo ko indi ak ñàkk xam ñun nag danoo noonoowu te ñàkkunoo xam ginnaaw ñàkkunoo xam nag te noonoowunu luñ mën a wax suñ kilifa yi itam te la te di la lu rafet rek la ñuy wax ci yow waaye na la wóor ne lu metti la de waaw lu metti la làqutu ci nit di xas keneen te ne ki nga àndal danga koy dimbale ndax sa bopp la ak wor kooka yéen yàlla tënk ci ñu